salaatu allazi fi kulli sahrin wa fi safar hamaani halaa maahin maal absa wa safar Touba moom Touba ci loxol Cheikh Ibra la mos a nekk lépp suñ Touba ci loxol Cheikh Ibra la nekk loolu tamit na ko ñëpp ndoo bàyyi xel lépp suñ Touba laax ci saayir nag ak ci baatin suñ Touba da ko teg ci loxol Cheikh Ibra Fall Cheikh Ibra Fall mooy missionnaire bi loolu na ko ñëpp bàyyi xel amaana saayir si la wax nii rek mais baatin bi lépp mu ci loxol Cheikh Ibra Fall loolu ñu bàyyi ko xel waaw bàyyi moom ndigal li ndigal li moom ci seen loxo la ma sa tegu waaye nag ci biir loolee tamit nañ bàyyi xel ne ëppal ci ndigal baaxul mooy Cheikh Ibra Fall daana wax doom ndigal caabi la bu ëppee du tijji bu yeesee tijji boo ko yetamit na yàq nag am na ñu jur suñ suñ biir bëgg doon ay Baye Fall waaye bëgg a doon Baye tamit da ngaa a xool doxinu Baye Fall bañ koo mooy ngay xool ni Baye Fall a doxe dëgg-dëgg nga di ngay doxe noonu bañ a bañ a bañ a mooy bañ a mooy loo tamit ab soññe la ci sa jëmi bopp waaye ab soññe la ci mbokk taalibe yi Baye Fall yombul nag doon ko yombul amaana doon doon lu ko nag man naa ne waaye dëgg dëgg Baye Fall doon ko yombul li la koy dolloo nag mooy sa pas-pas ak sa ngëm-ngëm waaye tamit bañ a dépassé ndigalu sëñ bi di yem fi la sëriñ bi yem loo boo fa boo ko boo ko dee dund noonu rek sàmbaram dañ la dimbale li nga li ngay sàkku ci Baye Fall di ko am incha allah rabbi ñi bàyyi ko xel dégg nga Baye yi moom lépp suñu tubaab Baye Fall ko yor ndax Baye Fall yi ñooy Cheikh Ibra Fall Cheikh mooy Baye Fall yi point salaatu allazi fi kulli sahrin wa fi safar hamaani halaa maahin maal absa wa safar